Euh, warna naa mën parce que man pour man ce n'était pas évident puisque parcelle barina ay ndana yu fa nek mais Ibro mo mujjee génn boy bi fimné ni on te parle de Ibro nadjo partout fo jaar ci Parcelles Assainies waaw wa lolu mom lu ko war lenn la xam nga tey jii nii nit ki loy def te amo ci gëm-gëm dang koy bàyyi man ba may dugg ci art sama yaay bu góon hmm. mais moom demee toog ba néma ma demal demal nga way légui demal sama xel ci la dal inshallah té te lépp dina baax hmm. mais bi moo la wax nga dem woy quoi. waaw nee na ma demal. Mm. jarutul mooy tiit daal. sa premier programme kañ la woon ak fan la woon. sama premier programme le 29 décembre la woon. Blue Saxo. bi passé. waaw mais boobu léegi yàggul defagul sax at. ndeysaan ah def na at ci décembre bi la def at. def na at. waaw mais dama doon tëgg ay événement di tëbal ay deux mois trois mois di tëggaat. Mm. waaw. ok yan boîte nga jotagum tëggagum aux alentours des parcelles. waaw dë tëgg naa Blue Saxo. Mm-hmm. tëgg Tropique. tëgg yëngu leen. Mhm. tëgg naa five. waaw le 30 nag di dem saraba. di ci woo ñëpp nag bàyyiwuma kenn le 30 bu ñëwee dina nga xam ne lépp dëgg la. <laughs> à dire five fa la ñuy waajee pour dem ah booy booy ku ci fee feesal five rek war ngaa mën a dem Saaraba mais ndax yëg nga ni Saaraba moom ba yàlla xuj a bajaan la. non ñun ragaluñu lool <laughs> ragaluñu lool de. Ah. incha allah saraba dina métti yàgg. ndax xam naa ni parcelle kenn du des. Hmm. Kër Massar waa Medina kenn du des incha allah daal. yow di nga hmm. ñëw incha allah. non bu keroogee sax la ma ca nar du ma leen ko wax <laughs> du ma leen ko wax dama leen di bàyyi ci biir ba le 30 incha allah ah, am na ñu ma ci jot a waxtaanal mais euh, maanaam lan mooy euh, perspective yi parce que tey single bi génn na Ibro Nadio bokk na ah parce que tey mën naa ni réussir nga paris yi relever nga yenn défi yi ah léegi li des mooy dugg nga bokk nga alors ndax Ibro Nadio dafay yem ci ay single rek wala bokk da nga ñëw pour imposer sa bopp génne ay album def nii nii sa morom def. waaw incha allah moom loolu yëpp dina am incha allah. dinañ génne album dinañ def ni maanaam li fi gaa yi def rek ñun dinañ ko def. ndax xam mm. naa ne yaakaar naa ne tey jii ñun ñun ñun xale yi ñu fi nekk nii tey jii moo ñu fay way tey jii lu jaaxal ñi ñi ndax mag ñi way nañ lépp. Mm-hmm. waaw kon dañuy ñëw rek imposer suñu bopp dëggal suñu bopp. Mm-hmm. incha allah te album yi dina ñëw single yi dina ñëw clip yi dina ñëw incha allah. suivre naa la en live Ibro mais da nga xaw a am tuuti stylu Sidi Diop ci kaw scène. c'est-à-dire yéen da xaw a bokk yéen maanaam euh, façon yi ngeen di defee ci showee ci kaw seen c'est-à-dire lan la ndax yow yaa da nga ko doon suivre ou bien euh, yëf yi moo tombé doo noonu. non man moom man yàlla dogal na ni sax maanaam du ma suivre man du ma suivre kenn man saa yu ma toogee Youssou Ndour mag ñi ñooñu laay suivre. Hmm. mais sii Sidi moom suma mag la suma xarit la waaw ndax bu dul dara tey jii moom ay programme am daan naa fa dem. Hmm. di ko xëy na nag looloo tax affaire yi xawoon duroo

Ibra Kebe Ibra Kebe fooy wootee. parcelle. parcelle acca Ibra naajoo ngi noonu waxal ak moom. naajoo. waa Ibra. naka mu gaan. naaj maa ngi lay siyaare. nii rek. jox ma dijee bi ma wax moom. maa ngi nii di la dégg grand. dijee ñun kooku lañ am. Hmm. moo ñu jaral ñu bàyyi ci yite yëpp topp ci ginnaaw. ndeysaan. ndamam di ndamu parcelle. ndamam di ndamu parcelle. Hmm. na ñëpp ñëw jàppale la Latirane. incha allah parce que naar bi ñu ko laajee lu tax saa ñu xàccee pour tóor la rek da ngay jël sa kanam yóbbu ko gànnaar dafa ne foofu laa yaakaaree ñu ma dimbali. kon moom parcelle la yaakaaree ñu ko dimbali parcelle la wóolu parcelle la am. ndeysaan ñun nag mënul toog ci plateau ba jug fa ñun wootewuñu. parce que fu mu toll ci ñun dafa sori. est-ce que. suñu suñu la mm-hmm. suñu lépp la. luñ koy ñaanal nag moom xam na ko bu baax xam na li nekk ci suñu xol. Mm-hmm. carrière musique am yàlla nañ ko dégg comme fi ñu dégg yeneen artistes yu mag mm-hmm. mu nekk nii yar bi mu wax nii moo ko may lépp. ndeysaan. na si gën a góorgóorlu rek. Mm-hmm. gën a fonk ay magam yu nekk yu mu fekk ci aar beeg lépp. aar dafa gudd tànk. lu ne ngay jàkkanteel xale la demagul fenn sañagul fenn. day soog a door rek. nañ ko ñaanal yàlla mu musal ko ci cet ak làmmiñ. ndeysaan. inshallah Ibro hmm. Wow, Ibro ci kaw sa kanam rek waaw di bëgg ci yow rek yow amal ay conteneur jaamu daal waaw gaa yëpp lay siyaar fii ñoom doy Ablaye Niang lay di waajal le 30 bi nag inshallah le 30 dina metti yàgg de waaw inshallah yow ñoo amal jàmm rek xam naa ne lim bi état Wow, bolake ba ma bàyyi yeneen Insyaallah, yi dugg ndeysaan yow ñoo après ñu inshallah amal voilà jaajëfal nañu ko bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne rek yaa ngi ci ligne bi te bëgg a jokkoo ak euh, Ibro euh, naajo euh, sànq si li ñu doon waxtaanee mooy maanaam naka nga yaakaaree liggéey ba mën a téye parcelle sa loxo comme ni nga xamante ne waaye noonu la amee seen i artistes. ah Pikine amé ko ni yeneen gox yi amé ko ni parcelle boobu ba tey euh, kenn ku ci nekk euh, sa bo feulé tu te dis le souci des parcelles assainies est ce que yakar nga ni war nga am tok ci bobu bi. non tay ji yow lolu yow. Hmm. lolu manam yow lolu war nga ci xam dara tey jii parcelle boo fa duggee tàkk. Hmm. paa yeeg maire yeeg xalé yi ñep ko ci wax mu naan la Ibro Naajo. mais boy lolu yagul yagul mais tay ji dama dama gis ay gaay yu fa nek def ay at. ndaysan wa léegi ñooñu classu dem ba gisé gi fo leen di def. non ñoom Demba samay gànnaar lañ. ah ñoom moom maa ngi seen ginnaaw loolu kenn weranteetu ko loolu. loolu kenn weranteetu ko mais tey jii. nii moom Ouz Boy PA foo def. waaw Ouz sama gànnaar la suma ñi jaay la moom. Ah. kooku suma rakk yaay la. ñoom Baye Ousmane. ndeysaan ñooñu a nga parcelle la ah. waaw ñëpp a nga parcelle cest à parcelle li garaaw mooy dafa seere. ndeysaan parcelle moo seere ci ay waykat. te Ibo Naajo mi ngi commencé di fër la man loolu laa bëgg a xam man ni ni lan la Ibo Naajo parcelle moom si kàttanu yàlla ah. foo déggatee Modou Xarañ Lo di nga fa dégg Ibrahima Naajo incha allah ah bon incha léegi loolu la koy defal noonu. ah tey ji maa leen woon tey jii li tax ñu may ñu may defal loolu incha allah. Hmm. mais parcelle moom foo fa déggatee Modou Lo fa dégg Ibro Naajo incha allah. pourquoi Ibro Naajo. waaw loolu ku la tuddee loolu Ibro Naajo Naajo bi fu mu. loolu moom ah. temps xale la loolu yàgg na. xam nga temps xale moom. Ah. xarit xarit yi ngay àndal façon tur bu ne la lay wutal. Ah. ñu xool ma daal tuddee ma Naajo daal. <laughs> mais booy duróo ak Naajo yow maag yow yam dañoo ñuul. mais ni ñu leen noonu lañ jantalee tamit. ah non naajo bi quoi naajo xam nga en général gars yi comme comme comme ñu sant ba dañ daan tooñee naajo ba ah, ay pël fuuta ak affaire yu demee noonu mais yow duroo loolu pourquoi naajo. ah moom booy bu jantal bi ngeen koy wax naajo alo <laughs> naajo laa soxla woon. naajo eh, bu ko waxati naajo de. léegi léegi dañ koy saade nekk tu naajo léegi batanse la batanse <laughs> allo. Eh, Ibra Batan Sele léegi ah bàyyi leen naajo bi ah c'est pourquoi naajo may yan alors léegi dañuy dañuy damay téye léegi ligne bi euh, ñu ñu ñu déglu singalu Ibro bi bu ko defee moom mu mën ci dikk ak ñun one est euh, ñu dogg ci commentaire ak euh, auditeur yow man dama laa dama laa yow kaay wuyu ma jege ma yow sama reeni xol dama laal ma yow mi nga xam dara du tax ba ma xëy ndax yaay doon ki toog man sama kër bu sama njaboot waaye doole yamul yàlla mooy maye ndax moo di wul bu bi ma rom yow su ma sañoon di nga toog xaar bés dana ñëw lépp dana teew fii loo fi gis rekk dana jeex wër na sama yaay dama laa famille yombatul ndaw si lee moo tax wax amul dara amul daal maa la bëgg man te daw ma ci sinop saatu bati la xool waay zamba wuy yaay zamba ay man lii ma koy def dikkal ay waay zamba wuy yaay zamba mais booy lii lu ñu koy feccee jàngal ma fecc bi jugal Ibro jugal jugal jàngal ma fecc bi le

delluwaat fa booy booy foofu baax na de léegi mu mën ko de jóor li ma leen di xamal ba xamal leen ko mooy euh, euh, euh, parcelle am nañu soxla hein c'est vrai que parcelle am nañu soxla euh, parce que xalé ba ngi noonu té deug deug li mu génnee challenge la li mu génnee challenge la gis na xalé yi nak ñu ngi koy sinabé nu né hein ah. xalé yaa ngi koy sinap euh, morceau bi bëgg nañu ko euh, ñan ñoo réaliser son bi yan musicien waaw son bi nak sama grand Ibou Mbaye yëgalal micro bi nga jakarlo jàkkaarloog moom waaw gone hmm waaw son bi nak sama grand Ibou Mbaye hmm moko géré ak sama grand Lay Diagne di leen nuyu Ibou Mbaye ak Lay Diagne ñoom ñoo réalisé bi ba studio. studio studio laay dañ ko defee Fadia ah. ok ñoo ñan la foofu sama sama studio baa ngi mel ni Sandaga barki Rasulullah ah. <laughs>

Euh, Aïe, 88 le 628 99 90 ba léegi rek ñu jël auditeurs yi nekk pour Ibro allo. allo salam alaikum. salaam. ñu ngi sant bu baax. Sidi Sidi. Sidi Bara bu naajo parcelle de unité 7. Sidi Baara bu parcelle de 7. Euh, Sidi Bara, waxal ak Naajo ziar naa la. waaw Sidi Sidi doole ziar. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax mbaa yaa ngi am jàmm yow. waaw ñu ngi di la déglu de di sàkkal bu baax a baax. ah yi di bëgg ci yéen rek. waaw di lay déglu bu baax a baax. di bëgg ci yéen rek di bëgg ci yéen. waaw ñu tamit tey amuñu yéen ñu dul yéen tamit xam nga. lu leer lu leer. waaw ñu leen tiitaroo di namoo tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. wow, wow, momo ñëpp a ngi ci biir ñoom penda jigo ñoom rama ñëpp ñu lay nuyu wow, wow, ni fay waaw waaw waaw ñëpp lay nuyu di waagal 30 rek ndeysaan ndeysaan waaw sama xarit sama mag waaw lu leer lu leer yow moom bu wow, wow, suma xarit nga waaw waaw di la ñaanal jàmm wow, wow, bég ci waaw. non may na ma ko léegi dama koy indiwaat damay indiwaat ay waay samba bi <laughs> waaw dama ko bëgg mën balaal le trente incha allah. waaw mooy loolu loolu maa la wax loolu. waaw du yomb

ça va bien maa ngi sant bu baax a baax tur bi naka la. waaw waaw kii Aliou Diaw la depuis jàmm gën si Kap Mbaaw. Aliou Diaw jàmm gën si Kap Mbaaw. waaw Aliou ati Ibro ngi noonu waxal ak moom. waaw ma xam ne waa King waa King FM tey King lañu invité. tey King lañu invité King. waaw waa King FM King rek a fii ñëw. <laughs> waaw. ñoom <laughs> laay ba ñoom Aliou Mbër depuis ñoom laay ba depuis West Foire. Mm. ñoom Aliou Mbër. Mm. borom parcelle naajo xam na loolu. ndeysaan mm. ndeysaan. di ko wax ne xoolal waa mbayaar bi ñu ngi koy tàngal ci ginnaawam. ndeysaan ndeysaan. waaw di ko wax ne ñun ak ñun ak moom yemuñ ci araba xam fan lañ jëm ak moom. ah. Zénith Saint Pétersbourg lañ jëm ak moom. maa la wax lu ni mel. parce que Sëriñ Bamba booy wow noonu mun naa lu ne ci ku diirul doo jam. noon la demee nag bàyyi. dañ mm. jàmm te am na wax bu ma koy wax moom na la ko wax laaj ko wax boobu ban wax la moom mu tontu ko léegi may dégg. booy loo koy wax lu mu lay wax.

sant nii di bég ci yow. waaw yow fii lu ëppee yow xam nga loolu sax. ndeysaan. xam nga ne da ngay dem ay waay Samboro Mbax yaa ko moom parcelle yaa ko moom. lu leer. fu Modou Lo toll di fa toll bu soobee yàlla te ñun ñoo la fay yóbbu. ndeysaan te yow xam nga si yoo xam nga loolu. lu leer. <laughs> ku la buux nga dem ku la buuxul nga dem. lu leer ndeysaan. waaw ñoom laay ba yoo xam nga ñu ngi sa ginnaaw borom West Foire. te Aliou joo xam nga sa doomu ndey la li mu lay wax xam nga loolu noonu benn conseil boobu moo gën conseil yi ngay gis te yow sax yëgoo si yow yow da nga di ko xam ne yow complexe nga sax yow affaire yi jaay nga war a kii kii sax. yow complexe nga yow moom doo mos a soppeeku yow. ndeysaan. waaw waa Gën bi ñu ngi sa ginnaaw. waaw waaw VIP sacrifice yi yoo lay ñu ngi sa ginnaaw. ndeysaan. waaw ñun ñëpp ñu sa ginnaaw yoo xam ne da ngay dem. ndeysaan. Baye Fall yëpp ñu ngi sa ginnaaw waa Treize baal ñu kenn. waaw Fall ñu ngi nii ci daara ji toog di naan café. ndeysaan. waaw te xam nga ne Fall fi mun fuuf. waaw kon jeex na. kenn du moom kenn du ko wax kenn du ko warante. naajo da ngay dem de waxal gars yi nag xoolal nañu tey rek bu ñu yàkkam ci dara xale nga nag bu ñu la jéem a accéléré nañ tey rek léppay ñëw. waaw yow si yoon nga nekk rek dégg waaw waaw li la di wax rek dégg nga waaw ah, insha allah yàlla waaw dina baax yow ñëpp ngi sa ginnaaw waaw tafa mu ngi di bëgg am cokoto ah yoole def sa bo <laughs> ah mafia bi daw si deux giga mu ngi nii toog nee dafa kontaan ba du wax sunu mbër bi deux giga mu ngi nii toog nee du wax ndeysaan waaw inter onze gaa yi ñu yow daal rek yow dundal bi ah, waaw ok voilà jaajëfal nañu len bu baax a ñoo ñu di ay euh, xaritu Ibro Najo, ah, gars yi nga xamantene ñoo nekk ci ginaam alors Ibro attends ñu jëlaat keneen ki nekk ci ligne bi may Oui. ak yow ci laaj wo allo. allo. oui. mais sant bu baax baax kana. Hmm? Dayru. fay 10. d'accord à waxal ak Ibro. daayiru maa ngi siyaar wér mooy sant di bëgg ci yow rek yaa ndeysaan daayiru waxal tuuti ci kaw waxal ci kaw waaw vas-y mi ngi lay dégg waaw mooy seen yaakaar ndeysaan Ibrahima la tudd mënta bañ a oyof ndeysaan dina baax mhm, mhm. ndeysaan mais kontaan nañ trop jaajëf ñun ñu waa Parcelles Assainies unité 10 ah jaajëf ay ca 88 la 628 et 99 90 jaajëfal leen bu baax a baax ah euh, gars yi Ibro Naajo yi euh, le est-ce que euh, maanaam euh, Saaraba bi Saaraba bi euh, maanaam moom mooy doon soirée confirmation bi jégguloo Ibro wala bokk après Saaraba fas yéene nga delluwaat ci biir boîte yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ko ci biir town bi comme fi nga démarré ay Kabana ak yëngu leen ak yooyu. waaw incha allah après Saaraba moom incha allah dinañ xool yeneen boîte hmm. incha allah. ñun daal bàyyi ñu fi benn boîte incha allah yow hmm. yow lu ci mënti am rek yow ni nga ko xam ndax maa ngi sa ginnaaw suma hmm. inshallah lu may defati inshallah dina la ko wax boy dama yag parcel de 84 ba legui maa ngi parcelle ndeysaan <laughs> parcelle lu fa tabax sama kanam lañ ko tabaxé <laughs> ay ca 88 de 628 99 90 alaykoum allo allo King FM allo allo allo waaw ñu ngi lay dégg kookan la Ndeye Fatou unité 10 day faatu acca waxal ak Ibro allo lay dégg allo waaw nday faatu maa ngi siyaar de maa ngi sant ndeysaan kenn yow yow amal jàmm rek amal jàmm ju bari. tey ah waa Parcelles Assainies unité 10 yaa ngi noonu Ibo fan nga dëkk ci parcelle. maa ngi 13. unité 13 ah foofu nga dëkk ci parcelle euh, parcelle nga juddoo. waaw ok yow moom kon doom doomi parcelle pire quoi. waaw ah, leer waaw dafa mel parce que gis naa ko ci waa parcelles yi dafa mel ni daal euh, sentir nañ seen bopp ci yow. ndeysaan moom mu ngi noonu daal. gaa yi daal mu ngi noonu gaa daal pare nañu. ayca salaamaaleykum. salaamaaleykum. ku baax noo def. ñu ngi ziar bu baax. Mm, delloo ziar mbaa ngi am jàmm. jaajëf na yokk. Fata. HLM Ibro. Mm. Abdou Fata maa ngi ziar wér waay. Mm. <laughs> suma tëyër boobu noonu moo ko papa. sant Sëriñ waaw fii la ëppee fii amal jàmm papa. ah kooku suma xarit la papa maa ngi siyaar maa ngi sant. waaw maa ngi ci waa mais bu fàttali waa parcelle yi ñëpp ñu sa ginnaaw dégg yow muy neex muy metti moo loolu. ndeysaan. yow léppay baax bu soobee yàlla paa wa ngi nii paa ma waa HLM ñëpp. baax. waaw naka ah, ah grand cool. waa asalaama ngi noonu de. sama mafia bi ñoom Papa Diagne. waaye sant rek. ndeysaan waa Sélém ñëpp rek. mais mais H&M. allo allo. waaw léegi man bëgg naa xam xam naa ni bëgg ngeen Ibro naajo mais c'est-à-dire ba léegi dégguma bu budul benn waay bu ko fi wax naan ko bul bul gis succès man bëggoon naa su ngeen uh, jokkaarloo uh, ak uh, Ibro lan ngeen koy conseillé fi mu toll nii ci yoon bi mu toll nii. yoon bi mu toll nii nii nii nii. waaw. waaw xam nga da nga ko si conseillé rek xam nga wax ak kenn. Mm-hmm. te tamit xam nga ne xale bu ndaw la. Mm-hmm. dara dara dara jafe-jafe xam nga ne moo bëri yu rëdd. waaw mooy mu dóor mhm. xam nga rek. di liggéey. di liggéey te di di a tëdd. ah moytu moytu moytu moytu yaay booy yi. waaw waaw non yaay booy moo eh, booy garaaw na de booy li yow booy eh booy ni nga bëggee awra yow booy yow booy yow garaaw nga de booy yaay booy mu ne garaaw. loolu ay deuxième la day xaar. ah. ok ok foofu baax na. jaajëf jaajëf. jaajëf. jeex na. alors ndeysaan waaw bokk jaamu ji ndeysaan

jaajëf ayca bëgg nañu ko bu baax a baax xam nga sama gars yi ñoom amuñu sago ci seen waykat ah euh, bu ñu duggee euh, kenn ku ci nekk rek euh, jàpp nga Ibro moom maanaam noo noo waxee ak moom rek kër gi la ñu jël keneen ki nekk ci ligne bi ba xam moom itam fan lay dikk salaamaaleykum allo ku baax noo def alo waaw naka mu mbaa yaa ngi jàmm sant yàlla bu a baax. bi naka la. man la Gora Diaw. Gora Diaw fooy wootee. Parcelles Assainies unité 10. a Gora waxal ak Ibro. jox ma ko. ah Gora maa ngi siyaar de. delloo siyaar gaay na ko waar. sant Serigne Touba rek baa yaa ngi ah di kontaan ci yéen rek. waaw faa nga ko waa. lu leer waay. jàppale yaa am gën a xam li kanam mooy daax. yàlla baax na yàlla baax na. yaa am gën a xam sax yow. ndeysaan yow amal jàmm rek yow moom borom baax nga. waaw maa ngi bàyyi ba kanam ak yow kon. ah waaw kon neex na. yaa am gën a xam sax. Hmm. Adja, euh, c'est-à-dire euh, parfois tu as même du mal euh, à t'exprimer parce que gis boy boy booy parcelle ni ñu mel ci yow euh lan moy yow on maanaam li nga xamantene euh de retour japp nga ni euh, loolu ci la wa waa parcelle di xaar parce que tamit deug deug nit ñi bëgg nañ la ni parce que yaangi dogo tambali mais euh, yow lan nga yaakaar ni mom nga mën def ba wa parcelle li yaakaar bi ñam ci yow du tass ah chaque jour di len jox liñ bëgg rek. jege sa micro jege sa micro. ma ne chaque jour di leen jox li ñu bëgg rek. Mm, mm, li ñu bëgg comme par exemple. di liggéey rek. Mm. di leen liggéey loo xam ne tey jii heure boo leen ko joxee boo leen ko boo leen ko wayalee dinañ bëgg. ci loolu fi mu nekk nii doxuma ci dara nag. que li coow li bari bari benn son nga am. Mm-hmm. benn son. la ñu amagum ci Ibro Naajo boo xamante ne lii xam nañ ni boo duggee ci biir internet bi wala nga dem fenn di nga xam ne lii Ibro Naajo ko way lu leer mais par exemple yeneen son yi nga xamante ne yaa ngi koy joué en live yan morceau ngay gën di euh, développer sur scène. waaw am na am na benn morceau boo xam ne moom laa woy waa parcelle. Hmm. am na yeneen am na morceau ay morceau gars yi daal morceau yëpp ñu bëgg. Hmm. incha allah te xam naa ni. mais morceau yi ngay woy ci seen yëpp yow yaa ko moom. lépp du ay morceau artistes yu ñu reprendre ak yooyu. non du ma yooyu kenn. Hmm. waaw morceau yëpp maa ko liggéeyal sama bopp te des na yeneen sax des na lu bari. xam nga xel moom tey ji boo yoree sa xel xel pour xalaat la kon del xalaat di liggéey di travailler di jox nit loo xam ne sa xol lay jóge ndax orof njaay nen lu jóge si xol si xol rek lay dugg mhm. waaw kon da génne li nekk sa xol li nekk si yow maanaam pour mu mën a dugg nit ñi ok waaw ok aca 88 628 99 90 gars yi ñu ngi ci ligne bi boobu ba léegi do ñu jëlaat yi rapidement balaa muy dem allo allo oui sant Ibro aca waxal ak moom waaw maa ngi siyaar voilà mon euh, Demna, na nous 88 628 99 90 nous delloo waat euh, single bu Ibro nous ngeen dégluwaat nous ma ci aperçu. nous la King FM salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi sant bu baax a baax. Naajo laa soxla woon. aca waxal ak moom. allo Naajo. aca waaw. siyaar rek man la Alsaan yaay Kaase. ndeysaan Alsaan maa ngi siyaar. waaw jëloo siyaar naka mu. sant ni rek. woy yow moom suñu Fall rek laay bàyyee. ndeysaan. maa ngi dégg inte onze. ndeysaan dégg it. waaw dama lay déggee wër na yàlla man sama gars yëpp. ndeysaan ndeysaan. ay amaat borom ci yitteel teel ñëpp a lay bëggee. ndeysaan ndeysaan. barke yàlla man doomu nday Famara doomu nday Médine. ndeysaan lu leer waay. waaw doomu nday Paradise. waaw loolu am na. doomu nday Auguste. ah waaw. waaw ñun ñëpp ñoo lay bëggee barke sëñ Touba. ndeysaan fii la ëppee yow yaa ngi ci kër gi de. jàmm rek nga yow ah, man kër gi la bokk. waaw loolu na la. waaw. maa ngi bëgg Adja Faye bu baax bii waa Faye Aïda Mbaye ndeysaan maman suñu rakk yaa ngi bëgg ku baax waay Adja waaw sama yaay la moo doon ndeysaan suñu yaay bëgg waale sama yaay man Diallo Adama Diallo man Joli Sarr maa ngi bëgg ñoom ñëpp ndeysaan ndeysaan waaw yow moom sëñ laa bàyyi lu ma la wax ndeysaan yàlla baax parce que ñëpp la bëgg sëñ ndeysaan nekk jàmm waaw jàmm ju bëri voilà ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, mbokk moom moom itam donc ba tey ci 88 628 99 90 ngeen jokkoo ak euh, Ibro Nadio alors euh, Ibro sànq yaa ngi ma doon wax ne ma single bi kañ la génnoon single bi laa wax ma ne kañ la génnoon single bi. single bi single bi semaine jegeel sa micro s'il te plaît. single bi le 9 la génn le 9 le 9 le single bi le 9 bi le 9 euh, moo nekkoon kañ le 9 de 5 jours ah. le 9 le 9 alors euh, def nañ distribution au niveau des radios radio yëpp jot nañ son bi. Hmm? le bëgguñ ko. non non lu ngeen di xaar. semaine bi bi semaine avant avant le 30. le di clip bi. mais après le 30 ok ñu jël ki nekk ci ligne bi après allo. allo. allo waaw. ku baax noo def. sant yàlla bu Da def yàlla na yokk euh, tur bi naka la. man Famara. Famara foy wote? maa ngi wootee Inte 11. Inte 11 d'accord Famara wax la Gibro. Wa, Ibrahima. Wa, Famara. naka mu lépp jam? sant ma ngi siyaar re. Wa, wa, ma ngi ni ngéwél gi de ñoom Adja ak ay caat Biba ay Dambay. ndeysaan waaw Soumaane ñëpp a ngi lay bëggee. Wa, <laughs> waaw yow daal ñu ngi lay ñaanal baat bi gën a waaw man man benn son rek a may daaneel ci Ibrahima. ndeysaan. waaw. ban son la. muy muy muy Dank Masa Thiaré. Dank Masa Thiaré. waaw bi baa bu ndeysaan ñëpp Ibrahima daal laf cat daal booy yàlla bu la cat dugg. ah amiin waaw waaw ñu ngi lay dëgg bu yor xaaral ma paas sa benn jigéen Adja. allo. allo Adja. naa jëfi. maa ngi siyaare. delloo ziar si loo nekk. maa ngi sant nii. dañuy yëkkul Adja Faye ngi noonu kii. ah mais bi moo toj soirée. ndeysaan. <laughs> Adja Faye sama rakk nga dugg rek yaa ma gën a xam mais yaa maa yow daal xamante nañ. ndeysaan waaw. waaw kon jeex na ñu lay ñaanal bu baax a baax. Eh, amiin waay jàmm ci yow rek.

Euh, après soirée bi y am clip est-ce que vous par exemple euh, ñan ñoo nek ci ginaaw Ibro Nadio ndax da nga am label de production bu lay ou bien yow ya financé sa bop euh, single bi ñun mom ñun mom ñun ñoy wa 2 mom ñun ñu ci kenn amuñu mm-hmm. label mm-hmm. ñun ñoy di xatchando di nous mm-hmm. wa ñun ay la ñun même génération gars may andal ku ci mel ay ñom Famara xam nga ak suñuy jigéen ñoom Adja Faye ñoom caat mhm. xam nga di leen nuyuwaale waaw ñu daal laay àndal di job bu baax ak ñoom Ilimane ñoom mhm. Ibra Kebe bàyyi ma kenn ku lim juum gars yi laay àndandoo di xàccandoo di dóorandoo daal ñoom ñoo lay jox xaalis bi non dañuy tàqal rek yaa ma gën a xam ñoom dañ ciy jàpp ñu si ñuy tàqale daal dañuy tàqale daal incha allah da ngeen taxale daal taxale. taxale daal ba defar son bi quoi. ah après ngeen taxale waat ba defar clip bi. incha allah loolu lay demee sax. <laughs> mais est ce que pare nga pour par exemple bu label euh, bëggee liggéey ak yow euh, tey euh, ndax Ibro Naajo la ñuy la ñuy contacter directement ou bien am nga mënat ci boo xamante ne moom mooy démarche say affaire. waaw ah, loolu moom xam naa ni moom ku ku ko bëgg moom incha allah xam naa ni Medoune ngay woo. Medoune hmm. rek man moom hmm. loolu ci loxoom laa ko teg. Hmm. moom la mais xëy na tey jii nii am na loo xam ne tey jii nii maanaam. Euh, ëpp ëppale na ma ko quoi moom mun na mun na lijjanti yooyu noonu. Mhm. xam nga bu dul dara moom jàngal moo tax ma jox ko lépp moom daal kuy waxal Médoune lay waxal daal. Mhm. ok yaa ngi joué ay jàkkaarloo affaire comme comme comme ni mu xewee léegi rek quoi. ah yi ñu ngi lay woo ci ay jàkkaarloo. waaw maa baax sax. bu mhm. ngeen joué ba pare après fay seen musicien ku ne bëgg naa def ci xaalis bi ci poosam. non xaalis bi du ma ko def sama poos. noo koy def dama koy teg daal. teg ko nan luy loolu. dama koy teg rek après ci la ñuy jox mooy mooy li ma lay wax ni takkale bi C'est-à-dire, je veux comprendre 4 4 2 c'est-à-dire euh, organisation, là, ou la euh, association, là, GIE, là, ou le groupe, il y a des études de 4 4 2 rek. Ah, nous avons des études de 4 4 2 Khatchando, Dorando, moi 4 4 2 Pourquoi 4 4 2 Dañuy daw bu baax do football la rek daw bu baax do Ah chief man man OK d'accord cest à dire euh, comme comme euh, tactique de jeu quoi 4 4 2 4 4 2 hein? wa tactique de jeu là <laughs>

tey lan lan nga lan nga wax Sénégal pour ñu jàppalee la ko yow. ah di leen wax ni seen doom ngi de xam nga tey jii nii ñun amuñu dëgg la parcelle laa dëgg mais tey jii amuñu loolu Sénégal. Mm. waaw man maa ngi nii xale mag ndaw ñëpp maa ngi leen di ñu ñaanal ma. Mm. maanaam ñu ñaanal ma fa ñuy dégg ndaanaan ñu moo fay dégg incha allah. Mm. loolu rek laay ñaan. ok soxla woo ku la jàppale ci ay matériel xaalis ak affaire yu demee noonu. ah yàlla baax na daal nañ la ñaanal rek quoi. waaw nañ ma ñaanal rek ñaan ëpp solo. loolu dëgg la tey jii ku am ñaan ñaa ko dara. absolument alors euh, en tout cas euh, temps bi mi ngi ñuy xocc euh, man maay téye nak ligne bi ma ngi jéggalu ci ñi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi xëcc parfois il faut que ma bloqué touti téléphone bi pour que ñu mëna waxtaan ak Ibro Nadio programme bi nga xamante mom mo nek sa kanam mom moy le 30 donc euh, après le 30 lan mooy li nek ci kanamu Ibro Nadio teew mi fi ndol ni mom moom coow le 30 la. Ah le 30 mom buñ ci paré inshallah. waaw Amna amna yenen amna yenen maanaam am na yeneen événement yu ñuy préparé. Hmm. après incha allah ñoom dinañ si xam dara incha allah. il faut il faut le 30 passé daal. le 30 daal faa mu passé le 30 daal maa ngi woo ñëpp. man parcelle fu ma tourné gis benn poster bu ñu taf quoi fu ma tourné ñu taf poster le 30 le 30. mi ngi mel ni benn événement moo am ci dëkk bi. ah waaw yoon la. ah jii nit nit ki boo dëkkee sa doom maanaam parcelle. Hmm. ñu am doom boo xam ne maanaam mu ngi dund aar tey jii faa nga ko jàppale ndaxte tey nit tey nit ki nit ki maanaam tey nit ki. nekul yow la quoi manam mm. ñi sa ginaaw tay ji ñoo la mëna a ba ñi ñi dégg la mm-hmm. waaw kon nak man ma parcel la am nañ ci ñëw di ci japp aw ma dara lu dul parcelle daal mm-hmm. waaw nañ ñëw di japp dal ay ayca mi ngi noonu tang tangum naat bu dajab dëkk dunk ya tax donc na wa parcel jappalé bu baax baax ñu jël ki nek ci ligne bi alaykum alaykum salam ku baax no def ñi ngi sant bu baax baax tur bi naka la euh, euh, ablay ñang ablay ñang fooy wootee euh, maa ngi wootee si côté d'accord ablay acha ibro nga soxlo Ibu Ibro de laa Wow, kenapa waxal ak moom. waaw grand bi maa ngi siyaar. Ibro delloo siyaar. maa ngi lay siyaar bu wér waay. Ablaye Niang bu Ibro TV. ndeysaan ndeysaan. ku baax ku baax ndeysaan. wah ñun day wax dëgg yàlla ñun ñëpp a ngi ko ginnaaw. ndeysaan. Barale wa ko ndeysaan ndeysaan waaw lépp loo bëgg ci aar bi yàlla ci borom defal parce que yow ma wax dëgg fa yàlla nit ku baax macha allah ndeysaan waaw te am na njort ne yow di nga dem ca kanam ndeysaan waaw li li li grand yi nekk ci aar bi am lépp yow yàlla nga am lu ëpp loolu amin waay amin waay insha allahu rabbi ndax wax dëgg fa yàlla yow ku baax la te yaa ngi ànd ak nit ñu baax yi ndeysaan macha allah yow daal amal jàmm rek waaw kanam yow affaire yaa ngi noonu affaire yi daal sa yëf la loo si mën a jàpp rek nañ si jàpp yow ñu sa ginnaaw incha rabbi yow lu, loo loo ci li ñu li ñu li ñu naqari daal mooy li nga bëggul daal ndeysaan li nga bëggul moo ñu naqari ndeysaan lépp lu bëgg rek yàlla lay jàmm yow ñu ngi sa ginnaaw sa eh. euh, fu ñu mën a nekk ñu ngi sa ginnaaw ndeysaan ndeysaan di la ñaanal di la ñaanal jàmm yow amal jàmm yow yow di la ñaanal jàmm saa su ne yow moom borom baax nga

na mm-hmm. ci ñëpp ñëw jàpp incha allah. Mm-hmm. Ibro ngi nii seen doom la waaw. ñu jël ci comme auditeur bu mujj rek euh, laata ñuy tàgg allo. allo. ku baax noo def. maa ngi fi am jàmm tur bi naka la. 2 giga la. 2 giga aca waxal ak Ibro. Ibrahima Khalilullah borom Kurumba. ah dafa leer kooku mbër mi la. borom Wuyaay Samba. ndeysaan. doomu parcelle bi. waaw ah, dafa leer de dafa leer borom yoole bi ndeysaan. waaw tarax yëpp nag ñu ngi sa yow tarax VIP yeeg ñëpp ndeysaan la trente dañuy ñëw waa parti lépp dañuy ñëw def fa bëri ndeysaan mbër maa ngi yow yaay artiste parti loolu la suñu borom dogal kenn mënu ci dara ndeysaan waaw bëri ko sumbar daal la buux nag mu dem buuxul mu dem kon nag nañ ci teg loxo noonu la nag waaw di ci woo doomu parti lépp nag la trente man dama war a woote ndeysaan waaw man maay woote yow bul woote bàyyi ma ma woote la waa parti ñëpp nag ndeysaan kooku suñu champion la deux giga bilaay yow di la ñaanal jàmm rek waaw waaw yow di la ñaanal fu ñuy dégg mbër yu mag yàlla na la fa dégg incha allah. amiin waay yow ñoo ko bokk yow man sama gars yëpp a ngi nii yow yow loo bëgg yàlla nay jàmm ñoom Aliou ñoom laay gars yëpp. ndeysaan ndeysaan. Thank you. Aïe, c'en est tout pour aujourd'hui et ça a été un grand plaisir de recevoir Ibro Nadio sur cette antenne de la radio King FM Ibro euh, la ñuy bàyyi mu tàggoo ak auditeurs yi euh, bu ko defee rek ñu rendez-vous le 30 Inch'Allah allah foofu ci Saraba Night Club Ibro lan wax gars ah waaw balaa maa dem nak faa mu nuyu suma staff. Hmm. góor jigéen bàyyiwuma kenn di len nuyu nak lepp ñom la. Hmm. di nuyu suma yaay waaw moom mom xamam. Mm-hmm. saa su ne mu ngi ciy jàpp daal maanaam moom dafa mel ni sama moroom la sax wax dëgg yàlla mm-hmm. di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm ju bari gudd fan ak wér di nuyu suma xarit suma grand bro mm-hmm. moom lépp moom la ayca kon euh, on se donne rendez-vous le 30 Inch'Allah, Ibro donc jaajëfalaat euh, bu baax a baax euh, mbokk yi xaritu auditeurs yi ak internet yi nga xamante ne ñu ngi ñu doon suivre sur www.kingfm.sn. point kingfm point sn ñu sur la page Facebook de King FM cant ak ngërëm ñeel na leen bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante itam yaa ngi doon King FM sur la 99.4. donc di leen jox rendez-vous lundi Inch'Allah, rabbi ci Benen, émission test bu donc lundi à 11h 14h di ngeen am DJ Cool ak Pape Cheikh Diallo fi ci King FM nous euh, ñu ñu ñu tambali nak ñun euh, suñu avant goût euh, programme King FM bu bees bi gannaaw DJ Cool Pape Cheikh di ngeen am itam Exidex ak Lisa Georgia 14h ba 16h 16h Coco Jean donc ba 18h ngeen daldi am Mati Carter ba 21h bu ko juste après 21h les tunes ci DJ ñom ñofi tew lolu moy programme test bu King FM à partir de ce lundi lay doon inshallah Quant à moi, DJ Cool, je vous donne rendez-vous euh, samedi dans King Events à partir de 9h. Merci beaucoup, euh, Papa Jean, euh, ci réalisation bi Content nañu ba àgg ci lool merci beaucoup Adja ci euh, bagage yi moom itam mi ngi ci digital bi di jaajëfal kep ko xamantene rek japp nga de près ou de loin ci réalisation émission bi bu ko defee ñu jox leen rendez-vous samedi inshallah. Légui légui programme bu King FM de wéy Daniel ngeen jëf allez passer un bon week-end.